أنت ربي وكنت لي بدادي Touba Taïf Karo nekk fii ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 mètre pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration yooyu amul fenn ay carreau pour s'en ay cuisine wala sen toilette ay grepoli 60 60 ay plainte wala ay baguette ba ci ay carreau parquet lépp ci bir Taïf caro ay caro espagnol 60 60 wala 40 40 mars escalier wala contre mars a ah, mbok yi lepp lo soxla ci walu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw Taïf Karo li ci gën a neex mooy Taïf Karo defal clients yi promo boo jëndee karo yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf Karo nee naa la matériel sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy siège anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau un niveau deux wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànca fii ci Sénégal bëgg a seen kër ba mu yëpp bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 77 745 76 88 wala 76 923 33 85 ak Touba Taïf Karo ñooy number one ci wàllu jaay karo. am na solo day ñëw directement waxtaan ci li nga xamante ne mooy làmb ji am euh, le 28 avril muy si diggante ki nga xamante ni mooy Alioune Seye 2 ak ki nga. bobu lamb nañ koy wajé waaw waaw wa Gaston production ñi ngi waj ñi ngi waj bu baax wax deug yalla mu nek uh, lamb jo xamanté bi ni après corité bi mo fi gul ben lamb bu mag laataa loolu ci tamit Gora ndoy mi ngi jëm dimanche ci digënté Maxi Crési ak Boylo Ambras ak Tyson new ak uh, Siteu bu ak uh, Arsenal ay combat yu neex Go Salam production ñu féliciter bu baax aussi tamit di féliciter Makan Bengo bu baax parce que tamit li lañuy wax quoi li lañuy wax c'est bu nice tay ministre bi mi ngi génn di wax ay buñ ma tuddé drapeau Makan beng 28 avril kan la ko tuddee sëñ Modou Niang la ko tuddee pourtant mm-hmm. est-ce que manam da ci xaar xaaliss wala dara monde lamb tay ñom dañu nekk nit ñoo xam ay nit ñu baax lan dañu nekk ay nit ñoo ni nit ñu fidèle lan ay nekk nit ñoo xamanté bi nii sawaay nitu teranga lañ mm-hmm. parce que koku nonu papam la def na lu nekk ci lamb mm-hmm. wax deug yalla formé na ay mbeur ba ñu nekk ay millionnaire formé na ay mbër tey ba nekk ay nit ñoo xamante ne dañuy tedd ci dëkk bi. Mm. tey mu génn àdduna ñu koy ñaanal suñu borom xare ko àjjana makan di ko delloo njukkal la 28 avril. Mm. xam nga yooyu mooy ses yu baax yooyu mooy ses yu naaj. Mm. promoteur xaaruñu benn parrainage pour maanaam nga neexal seen ceeb wala nga diisal seen poos le 28 avril ñoo ngi waaj premier combat bi am nañ ko diggante Sitapol bu Kër Massar ak Mbisaan bu Tiwaawoon deuxième combat bi day ñëw si Cikiri Caaco bu Grand Dakar Alliance Balde bu Pikine troisième combat bi day ñëw ci Alliance euh, Sakob Balde bu Pikine Falaay Balde ak Albouri bu Sanjambur euh, buñ jógee ci loolu aussi tamit am nañ fa Gàmmu Gay numéro 2 mooy cinquième combat bi ak euh, Njaaytin buñ jógee foofu sixième combat bi am nañ fa booy Jaxaaw ak ki nga xam ne mooy Njaga Doole waaw septième combat bi aussi tamit am nañ fa euh, Doudou saane mm. ak ki nga xam ne mooy mm, kii nu mu tuddati euh, euh, Doudou Sané ak Boy Jaxawa. Doudou Sané. Doudou Sané Garga 2 am nañ fa Boy Jaxaw ak Njaga Doole am nañ fa Caatu Yaraax Caatu Yoff combat spécial bi mooy Garga 2 ak Doudou Sané. Mm. grand combat bi mooy Alioune Seye ak Coench incha allah xam naa yàggatul dara dinañ def dernier face to ci turu Gaston production. billets aussi tamit dina génn. yaakaar naa ne promoteur bi mën na ci def ndéwénal di ko ziar bu baax moom Makan. Mm-hmm. Abdoulaye Ndiaye di ñaanal suñu père Gasso di wax ne monde de la bi yëpp nan ko ñaanal yitte woo na ko trop. Mm-hmm. waaw ci barke weeru koor gi ñu génn yàlla suñu borom fëgg boppam. Mm-hmm. wéral ay cëram. may ko kàttan bu baax a baax a baax. doo duñ ñëw ba fii te duñu waxtaanee ci ki nga xamante ne mooy sa frère Pathé Baldé. comme que sa waay la fan yii passé génn na def benn sortie boo xamante ni sortie boobu def na buzz xam nga na àdduna boobu sortie nan nga ko gisee. buzz bi baaxul de. Hmm. buzz baaxul de. baaxul kay ah mais nag. Hmm. xam nga erreur de communication la day dal Modou Anta. Hmm. day dal Naar Fall. day dal ki nga xamante moom la ñuy wax. des Naar gars dañuy attaqué wax ñu ñoo ñun si ay saytaane lan lu bon lépp ñoo koy génne. mais yow ki Ibrahima. Mm-hmm. ñun li ñuy neub bari na de. <laughs> amna ci loo xam buñ ko génnee dëkk bi taj de. Mm-hmm. man génn na benn mbeur bu mag ay million lay fayee ko jël na ko mu wax ci benen mbeur lo xamanté bi ni lolu bu génnoon loxo dar gemeñ comme ni ko Xaadim Anta sek di waxe mm-hmm. mais nak bi paré man waxtan ma ko ah li nga wax ci diw ki na de mu ma ah ko waaw mu ma dagal mako ma ko. comprendre ñun li ñuy sauver gars yi moo gën li ñuy dug moo ëpp li ñuy dugal gars yi. gars yi billaay bu leen dee dugal bu fekkee ne vingt cinq interview lañ def. Mhm. gars yi ñu leen di dugal cinq lañ leen di dugal vingt cinq yëpp dañ leen di sauver parce que wax yombul. comprendre mhm. Pathé Baldé depuis mu ñëw man maa ngi seetaan première interview am si Bawol TV ak Kewel Info Fatma Dia ak Naar ñoom ñoo ko jël. Mhm. ba ba tey nag mi ngi wax gars yi ñu ngi koy challenge ñu ngi koy savourer xam nga affaire yi mi ngi baax mi ngi jaar yoon mais tey erreur de communication ba amee dañ ko koy nangul parce tamit tey gars yi dañ ko war a gën a encouragé li tax ñu war koo gën a encouragé mooy que tey dafa am ci lu mu nekkoon 2018 yàgg fa torop ba defaat retour wax dëgg yàlla liñ ko war a gën a encouragé mooy ñu ñëw ñu teg ko ci bonne condition mu am ay ñeen ñoo xam ne dañuy nekk si ginnaaw buy wax ñuy waxtaan ak mom del waxe ni del defe ni del defe ni parce que wax deug yalla dund na loo bi ah man de bëgguma mu dundat ko parce que man yalla da dogal man mako bëggal sama bop te yalla tax le fait que nak bam ñëwé batay sénégalais yépp jox nañ ko bop xam nga mbeur yeeg gaay yépp di top ay vidéom diko challenge sénégalais yépp bëgg ko comme première djumté la ñun dañ ko koy jéggal quoi ñuy xaar benen nar aussi tamit mi ko jël duñ def lu dul ko encourager diko féliciter parce que tamit ndaw la mi ngi ci yoon bi njuumte bi mosu koo dal xëy na nag def na erreur erreur bi mu def mooy que le fait que tey yow ak sa caméraman waxtaanu leen ci seggu leen parce que tey man bu ma jëlee woon kenn mu saaga makan beng lu samay vidéo bari bari duma ko dugal dëgg neexul de lu mu metti métti dinaa taxaw ma ne xalil kaa ñu segg lii kaa ñu def lii ba génne ko xëy na nag comme jumte boobu jal na ko pour la première fois dañ ko koy jégal parce moom booy la boo xamante bi ni wax dëgg yàlla mi ngi liggéey te Baol TV ku gis fi ko jëlee fi ko yóbbu xam ne caaxaanul quoi am na solo Naar Fall ñoo ngi koy nuyu di ko jaajëfal ci liggéeyam bu rafet di ko wax heure moom mënul mënul mënul bañ dal kenn parce que yàgg na def lu rafet ah mais euh, te ji genre situation yi reporter yi lan lañ ci mën a jàngat parce que euh, bu ñëwee naar la rek ñu si bëri dañoo dal yeneen reporter yi naan ay yàqkat dañ naan généraliser kay da ngay dégg ay journaliste ay saytaane yi nangam nangam defuñu nii gars yi nañu comprendre rek Ibrahima. wallaay àdduna amul solo gis nga nit ki métier bi nga nekk si ngay juum. nit ki métier bi ngay nekk si ngay am erreur. mënoo nekk reporter di am oto di am problème ci mécanicien oto bu paan ak nangam nangam. tey maanaam li ngay liggéey si ngay juum. maanaam bu benn reporter def benn affaire rek ñu ñëw généraliser ñoom ñëpp a yem ñun yàgg nañ fee sofe ay nii damay dellu siwaat ci wax ji wallaay la azim ah bari na tey loo xamante bi nii du ma ne xam naa lépp ci làmb bari na lu ma ci xam ak lu ma ci mën a génne loo xam bu ma ko ci génnewoon loxo dar gémmiñ te du bu ceeb wallaay la azim bari na ci loo bu ma ko génnewoon ay diggante yàqu ba faw comprend mais des fois dañuy sëgg mu jàll kon ñun nañ ñuy xam ne ñoom li ñuy sëgg mu jàll moo ëpp li ñuy bàyyi comprends mais yii bu amee ñun nañ gën a xamaat suñu bopp ba pare nag làmb ji ñu nekk yéen ñëpp laa koy wax ba ci man mii buñ fi xupp kenn ngay tiit ay di pat pati wala ñu lay tëkku nga naan ay bul jaarati fii fii kenn mën moomul fenn fu neex waay jaar fa man chaque jour dama koy bu may wax da naan booy bi dafa naqari deret ak nangam sa waay ñun yoruñu victoire yoruñu défaite yoruñu am-am yoruñu ñàkk. comprendre dañuy liggéey du daan suñu doole bu fekkee ne yor nañ victoire loolu dañ koy def suñ kanam pour avancer. comprendre le fait que nga def benn sotti wala nga def benn affaire du problème mu naar bi sax am na yeneen combat fi passé woon. ci ginnaaw da nga doon dégg tëkku yi boo ñëwee fii boo ñëwee dara du xew. mais dégg naa naar gars yi dañ koy tere Pikine. dañ koy tere Pikine moo koy tere Pikine. am na ñu si ñoo ko def. Pikine Dakar def na ci vidéo. non non non Pikine Dakar lan. nee na jaratu jaratu muy taxawal. ah déedéet kañ la def vidéo boobu Pikine Dakar melul noonu. non non non man kay bu fekkee ne vidéo boobu réellement am na seet am na am na seetaan naa ko moom dinaa woo Pikine. Hmm. parce que benn pikin nee na mayatuñu benn reporter ñëw foofu di jël <laughs> na nag. waaw ah, ah. parce que Serigne Bamba fa demee nii gën <laughs> mais baal mu sedd baay. non Pikine nag kaay ma wala man sama waay la. dinaa ko waxtaan ak moom parce que nag des fois erreur bu amee gaa da lay metti nga ne non paate gars yi dugal nañ ko wax na lu mu wëtt a wax jaxase nañ ko Sénégalais yi. maanaam mi ngi mel ni mbër buy doog a daanu rek. bu ma benn journaliste jël. mais ñu ne ñoom ñoo far. parce que wax dëgg yàlla ñoom seen kaddu fi mu yegg ñun ñoo tax mu yegg fa. Mm-hmm. ñun aussi tamit li ñuy dugal ñu koy seetaan ñoom ñoo tax. ñu ne ñoom ñoo far ñoo bokk liggéey Pikine amul xol de. am na benn mu ne ma dama koy tëj booy bi sibeer laa ko yóbbu booy bi lii moom ma waxal damaa bëgg a jaxaseeg Pikine ma ne ko Pikine lii taxul nga yegg fi nga jëm bu fekkee da ngay sànnante xeer nekk ci kaw garab te ku la sànni xeer nga wàcc fay doo mas a yegg te chaque jour borom caq day moytu borom baatum neen mm-hmm. kuy dem. day moytu ku toog di xaar nit bu nga bokkee yoon rek yéen a mën a ànd dem mais bu ngeen bokkut yoon mënu leen a ànd dem tey ñun ñoo bokk loo xam mënuñu koo séddoo muy làmb dañuy ñëw di jaay promotion wu làmb ji ñoom ñuy ñëw pour di convaincre seen ay seen ay seen supporters pour ñu mën a dem stade pour niveau wu combat bi yeeg ñun ñoo far Pikine amul problème bu waxee loolu réaction à chaud rek dafa tàng rek mm. mais naar bu bàyyi yow nee dafa dafa dafa dafa toog dégg ne ñun yenn reporter bu ñu toogee dañ naan dañuy yàqamte kaa am gars yi xuloo seen biir bañ jël si leen. man <laughs> dugg Pikine man nag kaay wala yàlla dogal na man xam nga loo maîtriser wu rek wala loo nekkul nekkuma ci man nii nga may gis am na benn mbër bu nekkoon Pikine comprendre nga. am na benn gaan boo xam nekkul ci réew mi mi ngi beneen réew. Mm-hmm. bi mu fi waxee benn affaire. Mm-hmm. am na ku ma woo ma ñëwal ma tontu ko. Mm-hmm. ma ne ko non non man du ma koy traité kaa quoi. parce que man moom wax dëgg yàlla. yooyu nekkuma ci man de xaw ma li passé sama ginnaaw mais nag. chaque jour ma leen koy wax ma xeex de damaa yolomal geño gi rek man ku ma tooñ wala ku ma wax loo wax maa ngi sa kaw man moom boo may doo ray ma. parce que damaa ndaw boo may doo ray ma mais wallaay fii ku ma fi jàpp dóor ma deew ma dara jot ma yow dootoo exiger ci kaw jamono ji. barke Cheikhul Khadim comprendre tey man bu fekkee ne man tey yow Pikine xoolal ñaata interview laa fay def man bu ma fa defarul luy yàq. wala buma fa defarul luy defar duma fa defar luy yaq même géejawaay way buma fa defarul luy defar duma fa defar luy yaq parce que lu bon bon tay même bu ci mbeur yu mag yi ak mbeur yu ndaw yi da ngay ak sen numéro ak ñom estati amna ci yu ñaaw yo xamanté bi ni doo dugal man Pikine buma fa bëgg na mënu ko yàq mais amna plan stratégie yu may tek dina fa jaxase ñu bari parce que sama jot may na sama xarale may na ma mais man sama ngor mayuma ma duma ko def ci Modou Anta lañ ko waxee ci la ko xasse ci la ko ni yàlla nañu ci mu musal donte erreur day am nag. Hmm. am na solo maa ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité. Ibrahima di la sant bu baax di la gërëm suma waa ji di la jox sa wàccuwaay di nuyu waa diaspora bi yëpp Def Laay suma waa maa ngi siyaare bu baax le grand gëj naa laa dégg grand laay Ndiaye borom États-Unis maa ngi lay béggee Abdourahmane maa ngi lay béggee bu baax ba Abdourahmane na xam naa dina ma gaañ joxe na ma benn ñaw boo xam ne deux ans ngi nii ñawalu ma ko maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax grand laay mbokk mi yaayam Pape Sarr hmm. Malaysia lay siyaare bu baax baax ñoom Serigne Dour bu Yara Serigne Dour bu de Ibrahima Kanté Tarkinda sëñ bara Kanji bo limé da ngay joom Abdou tal bu xarañ lo suma waji bu baax di ko jox waccu wayam hmm, Abdou tal bu mbay guuy gi maa koy bu baax a baax mo ndjay mangkoi directeur Séri Mado maa koy bu baax mo ndjay family mo ndjay social koy bu baax baax kool grand la quoi nit ku baax wax dëgg yàlla tafaatin bu kër ndjay lo aussi tamit mangkoi ngi koy suma waji di ko jox wàccuwaayam baax di ko wax ne ko kontaan naa si moom Aliou borom raam daan Couture gis nga chaque jour rek comme ni ma leen ko waxee rek rek Aliou fa jaar wax dëgg yàlla ànd bi yàgg na macha allah te mën naa ne daanaka ba mu jàppee ba tey bàyyiwul maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax gaynde boo limee da ngay juum di nuyu sama waa dëkk yëpp di leen jox seen wàccuwaay. Mbaga ñu koy nuyu. Hmm. moom sama boy la nag sama boy bu yàgg la mais léegi nag Fallou Ndiaye da koo nangu ci man. xam nga moom ak xës sa copain ñoom ñëpp man nag damaa bari booy ci làmb ji. mais yàlla daa dogal gaa yëpp léegi samay samay diiran mbagg lañ mais nag amul benn problème man maa njaboote rek ay ñoom seex sey ay moo ñu boole benn cangatu xaalis. te moom cangat boobu ba mu ko sangatee. Mhm. gisoon na tuuti la ma ci mayan nag man gisoon naa. boobam rek la waa yemale. bii paa boole ñu. Mhm. mu téye ko dóor. joxuma wàllam hmm. gor du def noonu gaynde mun la booleeg nit jox ko Touré maa lay bëggee bu baax di la ziar jotuma ci ba tey nag ah. pour la deuxième fois ma la koy wax nag jotuma ci affaire bi macha allah jaajëf